wax moom kenn na war a wax moom wax na ñun kon sañ nañoo ñaan mu yàgg fi te ginnaaw sëriñ bi daf koo doyloo kon képp koo xam ne sëriñ bi doy na la te sëriñ bee doyloo sëñ bas mii di ko liggéeyloo war sëñ bas mi war na laa doy kon doy kon dañ lay ñaanoo nga yàgg fi te li sëriñ bi bëgg di la ko liggéey nga am ci lu kawe sa njort waaw loolu rek lañuy la ñuy wax ñun nag engagement muy jaayantewaat rek lañuy wax kenn mës ta gis ab néew ñu di ko sang am néew ñu di ko sang mu naan na wëlbati ma walla tàmbaleel loxo bii wala tàngaleel loxo bee am néew day bàyyee boppam ki koy sang ñun ci loxo yi sëriñ bi noonu lañ fas yéene mel amuñu bëgg amuñu lu ñuy bañ amuñu lu ñuy ñoddi amuñu lu ñuy jeñ man ak mboolem ñu nekk ci daara ji sëñ Atou li nu ànd ak moom moom sosu ko waaye gaynde la ci woon jàmbaar la ci woon am na ci médaille bu ne mooy lan liggéeyal sëriñ bi te bañ a bëgg bañ a bañ féetale sa lépp sëriñ bi loolu nag Mbàkke kon moom ci lañ fas yéene wéy kàddu gu may wax gudul kàddu sant la ak ñaanal la ni la sëriñ bi doyloo yàlla na ànd ak suñ boroom gën la dëpp kattan ba nga gën koo mën a liggéeyal ndax sagu yoon bi rek la ñor fu ne yaa ngi xool luy tax yoonu murit saa su ne ku ko gis xam ne liggéey bi sëñ Tuubaa bi yemul ak dara dara waaw ndax sëñ Tuubaa mi bind wax ne man na abadaa zanna annahu yakunu abada yurdihi billazi ka xidmati bada nafaytu zannahu bi andiyal xadim bi maa wanaa misli kullu xadim nee na li mu liggéey yonent bi amul fi àdduna sosoo ba fii ñu yem ak li ne suñu kanam kenn ku mës defal yonent bi ak ku ko nar defal lu mel ni liggéey sëñ Tuubaa bi du am kon yow lii nga bëgg te jàpp ko te dogu ci mooy dëgg wéy ci rek ñun nuyu sa ginnaaw ñun moom armée lañu boo xamante ne ñu ndigal rek ñu yëkkati ndigal rek moo ñu yëkkati armée lañu boo xamante ne kenn ku ne ci suñu biir koo xamante ne di doxee nen lu dul lan la sëriñ bi bi bëgg ak lan la sëriñ bi wax jiite liggéey bii nag lu yomb la ndax wax naa sëñ mu Muntaxa nee naa ko man de Mbàkke damaa dégg nga wax ne njabootu sëñ Tubaa gii ñii ma bokkal sëñ Tubaa ñëpp ay sang laa leen def ma ne ko ah lenn de moom ma jaaxal mooy wóor na ma ne loolu nga wax mooy li dëgg ci yow ñooñu nga def ay sang yow lañu yaakaar ginnaaw yow yaa ngi leen def sang ñoom ñu yaakaar la kon yaa ngi wan taalibe yëpp wan mooy lan moo yoon bi mooy lan kon ak taalibe ngay jàngale kon nun man mii day nekk ci ñu ne maa nekk ci bopp Hizbut Tarqiyyah fu ma gessoo dinaa gis ñoo xam ne ku ci ne gis naa ci yow lu tax ma jàppoon ne maa war a topp sa ginnaaw waaye dogal bi jëw ñu ne man maa ko jiite jiite googu nag man jàppewuma ko ak pal ndigal dong laa ko jàppe ndax buñ ma laajoon du demee noonu waaye ginnaaw sant nañ ma ko nangu naa ko ndax man maa jaayante woon ne luñ ma digal naa ko def luñ ma tere naa ko bàyyi waaye du ma weesu de maag yéen ñu ànd ci lenn lu sëñ bi wax daal dinañ ko def. duñ la war mukk. waaw la war mukk. danañu ànd ak yow liggéeyal suñu Bamba duñ la war mukk jërëjëf dina baax moom kay ni yoon bi daan doxee rek dara du soppiku lépp ci dal ak lu mu wax ñu jëfe ko ci dal ak sago nit bu jëlee dara ni sama dund gépp laa koy def foofu mu defee ko sago bu fekkee danaan nag bisub tey rek la koy def bu ko neexee mu xaatal xaatali mel ni bisub tey la koy def lii suñ dund gépp sëñ bi lañ nar a nekkal te amul guddi amul bëccëg amul suba amul ngoon yàlla nga fi yàgg te wér